dañu wowon euh, bi 11 h tege ñaar fukki minute pour ben lak bu am ci bi marché bi juroomi minute bi mu wesso donc ñaari engin ñëw nañ donc fofu gis nañ fa fukki cantine yu japon ba pare safara fi mi ngi don dem euh, penku donc ci lolu nit ñi commencé nañ def extinction bi ba pare ñu demander renfort yenen engin ñoro Kaffrine fatik Gossas parce que le problème bi j'ai, am mooy de un amul hydrant donc il faut maintenir un engin sapeur pomper, il faut brancher pour am il a fallu que oto yi dem ba Lindiane te Lindiane pratiquement c'est 10 km d'ici donc c'est ce waral sax ñu demander renfort deuxième difficulté c'est l'accessibilité accessibilité marché bi marché bi ay mbedd yu malheureusement l'engin, il dañuy taxaw foo il faut dafay xaw a sori pour mën intervenir donc loolu yëpp moo waral ne intervention bi yag parce que depuis 23 heures ñong pratiquement on est à 4 heures du matin. bouche d'incendie aussi bouche d'incendie commune bi amuko Bien benn fi nekkoon mo côté SGBS malheureusement bobu yakuna il y a deux à trois mois de cela donc on a alerté les autorités maintenant ñu ngi di déglu quoi mais il y a une nécessité que nous implanter ay bouche d'incendie d'autant plus que marché Kaolack mom day am lak chaque instant depuis trois mois pratiquement am nañ fi ñaari lak lak fi donc, j'appelle l'attention des autorités au moins pour nous installer des bouches finies au niveau de la commune. am nañu renfort bu jógee ci ñeenti caserne Nioro Kafrine, Gossas ak Fatick donc nous ñoo ñu permettre tout le temps am engin sur les lieux pour nous faire la lakk parce que li li li ñu jàkkonte woon mooy engin yi dañuy fay ba benn instant ndox bi jeex ñu obligé alimenter bu ñu demee alimenté wu balaa ñoo ñëwaat safara bi gën a jógaat encore donc loolu moo waraloon ñu demander renfort yi te loolu moo ñu jàppale bu baax ci liggéey bi